gërëm leen jaajëfal leen bu baax a baax nooy leen ku ci nekk ak turam ak nga xam ne eh, ñooy bàyyi xel xibaar yu rusee fii ci jamono TV bu ko defee ñu jukki eh, la ca gën a fas dina ci ñëw ci biir xibaar yi foofu ci diwaan diwaanu Morocco Eh, lu tolloog ci ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay doomu aadama yoo xam ne doomu ju leen eh, ñoo nekk ci am barab boo xam ne nam melokaanoo jéggi na dayoo ginnaaw nag yooni mbëkk mi eh, leen doon jëmali waaye nag loolu mu ñu naa indi akuma tagga xibaar bu ñu mel fas na ci po news ci niskis des teen ko yaatal dina ci ñëw ci biir xibaar yi ñettali doy muy Halifa Sallah Eh, am na ay kàddu yoo xam ne def ko jot a biral ca nag laaju ci doy ndax dinañ am akum nguur njàppandal eh, waaye nag eh, am na ay kàddu yoo xam ne daf ko ci fësal xibaar bu ñu mel fës na ci faatu network gis-gis des nañ ko yaatal dina ñëw ci biir xibaar yi ab jono boo xam ne Fabakary Tombong Jatta mu ngi ko doon def ndikki ni démb mooy APRC jàppale ne am na ñenn ñoo xam ne da leen xalab génne leen ci boobule political party xibaar bu ñu mel Eh, fas na ci Standard News ba niskis eh, des nañ ko yaatal dana ñëw ci biir xibaar yi njiitalu eh, si mooy ko ko jiite mooy docteur Ismaïla Cissé génne na Swedish citizenship maanaam daal doomu juddu réewu Swedish ba mu nekkoon génne na ko ginnaaw nag lu ñu mel dafa xët mbiram sata ak lu waa xibaar bu ñu mel fas na ci Standard niskis des nañ ko yaatal kon mbokk yi la ak yeneen i xibaar bu ngeen taxee lu tuuti bu bàkk bi daanoo Eh, tabal ñu ci yaatal gi ak leeru jamono bàkk ba jëm na fii ci jamono TV eh, comme na ma ko jikkoon ca njëlbeen ci lañ koy tàmbali eh, ci biir jotaayum atum xibaar yi loo xam ne ndiki ni tey Eh, kayit yëglekaay yi xëy dañ ko dëxiñ eh, ci loo xam ne dafa aju eh, ci mbiram li nga xam ne mooy Khalifa Sall Khalifa Sall moomu jàppale ne moo nekk njiitali political party bi leen di oyoo ci doy ginnaaw nag ni ki démb dafa amoon ab ndaje boo xam ne mu ko doon amal ci makkaanam bi foofu ca doy ci diwaanu Colchester Town ginnaaw nag ba mu doon waxtaan ak taskatu xibaar yi ca nag la aju ci doy ndax doy ñoom dinañ sàmm seen ndënd ah, pour nag ah, ñeneen wala oh, yeneen projecteur parties yi nga xam ne eh, ñu ngi fii ci réew réewum Gambie moom Halifa nag eh, loolu am na ay am tontu boo xam ne eh, daf ko ci biiral lam fasal ci ay kàddu sax ne nag doy ñoom nag den taxaw pour nag gën a soxali réew mi génne ko ci ndóol waaye nag bu nekkee ne dañu indi ab coppite rek pour wecc am xar-xaram ah, moo ne nag loolu taxut a jóg doy leen ci mën a déggee njiitalu PDOIS Eh, dafa biral ci ay kàddu ne ñoom nag bu nekkee ne nag jël nañ eh, ba moom xilaaf ak réewum Gambie Euh, dinañ def euh, seen kem tolluwaay kattan pour dàqale fi euh, wàllum ndóol ak lépp loo xam ne dafay deltul ginnaaw réewum Gambie mu ne nag bu nekkee ne political party beneen juddu na pour fexe pour dem ak lëkkaloo ak ñoom pour ñu gis ab lam di tuddee système change maanaam daal indi ab coppite ci anam bi nga xam ne loolu la réew bi nekk ji demee mu ne nag dinañ ubbi buntu bépp political party boo xam ne ñëw nga ba ñëw waaye nag loolu bu ko weesoo eh, ñoom doy eh, pareexuñ fenn pour def ak coalition ngir lan Eh, ngeen nag wecc am xar-xaram waaye nag eh, système bi fi nekkoon maanaam daal eh, réew bi ci anam bi nga xam ne moom la nekk di nekkee loolu nag amul benn yoo xam ne des nañ ko ci nam moo dafa biral ci ay kàddu bu nekkee ne am coppite dafay am fii ci biir réew wàllum pauvreté maanaam daal ndóoy foog nag ñu taxaw pour lu ñu mel ñu war koy mën a xeex comme na ko yéene kaay bi xëyee fasal bi lee xibaar Euh, fàttali ne doom ñoo ko xaatim beneen xibaar boo xam ne euh, moom laay seet ci li nga xam ne mooy fan nag bi réew mi euh, ginnaaw nag point ni ki ni tey dafa am ab taxaw seetlu boo xam ne dañu ko dañu ko indilal ci foofu ci Morocco Morocco nag jàpp leen ne am na ñenn ci ñoo xam ne nekk nañ ay migrants maanaam daal ay woy laxu wala ay tumuranke Eh, yooyu lee aji tukkikat sax ci réew mi fii eh, leen gongekoon ca diwaanu li nga xam ne mooy eh, tajji wala na ci gunjur kon di jégalu gunjur gawlu foofu la gars yi gongekoon pour jëmal yoonu mbëkk mi waaye na benn àggee foofu ci Morocco dafa am ay jafe-jafe yoo xam ne dañ ko fa nemmeekoo a ko waral mooy seen damak dëkk bi dafa tagga tembe ba lii yóbbee na lu tolloog ci juróom-ñeent fukk Eh, ak juróom-ñeent ci ay doomu aadama eh, ñoom nag ñoo fa nekk ci ab barab boo xam ne barab boobu nam melokaano eh, dafa jéggi dayoo ba lii sax sababu na ñoom nag damay doon waxtaan yéene kaay bi leen di ñëw ci point de sipa mooy dañ de toog lu tolloog ci ay fan yoo xam ne Eh, ñam du dugg seen biir mbaq yi ndox mu ñee naan tamit waxuy noppi eh, ñu ne lii yëpp nekk na ay jafe-jafe yoo xam ne eh, ñoom nag ñoo ngi koy jànkuwanteel comme na ko yéen kay bi xëy dëkk ñi muy ujoo ci point news pipa naka noonu li sa yóbbee na lu tolloog benn ci ay doomu aadama ñoo fa jot a dudd bi nga xam ne moom la gaa yi nekk di dundee ci barab ba leen denc foofu ca Morocco yéen kay bi ne li ujoo ci point news pipa ginnaaw nag ab xibaar boo xam ne Euh, dafa tukki kooku ci barab boobu euh, nañ ko mandargale euh, mooy ne ko loolu métti na ba àgg na ca lool comme na ko point fasalee naka noonu ginnaaw loolu ba nga xamee point ñoom nag def nañ seen kéem tolluwaay kattan pour jokkoo ak ambassade bu togal ci diggante gi réewum Gambie ak Morocco moom nag mu ngi ujoo ci Abdoulaye Bah mi sabab wala la mbiral ci ay kàddu na jamono bi ñoom nag am naa gëstu yoo xam ne ñu koy amal te gëstu yu mel la nekk jubluwaay bi pour xooli naka la ñuy muccalee yoolee domo du lëmbi ci coono yi nga xamne mom len nek di jànkuwanteel fofu ci Morocco mu ne nag ñoom lépp luñ mun ñu koy def pour waxtaan ak buntu jorin ben gàlloo lepp lu aju ci walu tugal pour wara muccel muccal domo doomu jullit way nak day japp len ne jamono bi lu tolo ci ñen fuk ak juroom ñent ci domo jullit réew ñi nga fofu ci Morocco tan nag baram bañ leen denc nañ coono bañ tay caay jànkuwanteel fa jigi dayo comme na ko po ñu suba xëyee xatim beneen xibaar boo xam ne ah, moom laay seet ci fan bi di réew mi ah, ci loo xam ne dafa aju ah, ci wàllum langu géwal politique yi langu géwal politique yi ñu may seeti mooy APRC ginnaaw ne li ki démbu political party boobu am na nag ab jono boo xam ne ñu ngi ko doon jono ba taskatu xibaar yi loolu nag la doon jubluwaay bi ginnaaw nag jàmme mooy ka fa nekkoon njiitali réew ba mbirale ay kaddum eh, fasal na sa APRC googu moom joxul leen digal eh, pour ñu dem ak NPP yi ñu war a def nguur ba njàppandal lii nag ba mu xewee eh, mbir ma nag indi woon na fa coow te coow lu ñu mel dafa mel ni sa pënd ma wureegul mooy njaw mu ngay gën a continuer eh, di desoo xambin eh, lii lee moo wundu eh, ñoom Fabakary Tombong Jatta muy Jatta mi nga xam ne moom nag moo nekk koo xam ne moo jiite boobule political party ginnaaw nag ci ay bés bu ñu génne sa jàmme dafa bi looloon ay kaddu ne daf ko dàq ci political party bi waaye nag moom Jatta Euh, fam taxawoon ba tey dafa mën i euh, tey ji nag la gën a dëgër comme na ko standard ñu si fa euh, dalee xatime lii yóbbee na ci ndaje boobu am na ñaari nit ñoo xam ne dañ leen fa daax ka ci njëkk mooy Abdou Diadio Abdou Diadio jàppale ne mooy National Youth Mobilizer bu si moom nag dañ ko génnee ci boobule political party Bakary Sibo Mané wala Bakary Sibo Sané Kun moom it dañ ko génne ci political party bi ginnaaw nag Fabakary Tombong Jatta Euh, moo jël yii leen dogal naka noonu lii ba mu xewee nag euh, moom it mu doon euh, addu ci NPP alliance bi maanaam daal lëkkaloo bi nga xam ne APRC ña ngi ko def ak NPP moom Fabakary Tombong Jatta sax lam biral ci ay kaddum Euh, mooy nag euh, jàmme dafa waxoon ne joxuñ leen joxul ko ndigal euh, pour nag mu dem ak lëkkaloo ak NPP waaye nag ni ki démb moom sax dafa biral ne mu ngi koy waat ci alxuraan bi ne bés bu mu doon wax ak jàmme mu ne fekkoon na fa Ousmane Rambo Diatta Yankuba Koli te naa sa loudspeaker maanaam daal téléphone bi dañ ko yokkoon ba mu ci waxi jàmme ji nag ñoom ñu ko doon dégg mu ne nag bu nekkee ne jàmme dafa biral ay kàddum wax ne moom nag euh, am ab nangutoo boo xam ne euh, daf ko amal seen ba diggante gi NPP ak APRC euh, Fabakary Sarr dafa mën a kaddu yu ñu mel daf ko daxalu comme na ko standard ñu siba xëyee dëxëñ naka noonu leneen lam biir la mooy nag ñoom duñ nekk di ŋàññi wala di saaga jàmme moom Fabakary mu ne mu ne mbir mu ñu mel Eh, ñoom nag dañ ko def ndaxte nag eh, lu mu bon yi bon yi bon eh, jàmme nekkoon na fi njiiti réew ci ñaar fukki ak ñaar yi nga xam ne mu ngi jikkoon ci booba xilaafa yi waaye ci tënk la ngeen man a déggee ci yéene kaay bi lay lam xëy daxañ muy uyu ci standard newspaper APRC jiite ko Fabakary Tombong Jatta ginnaaw AIC nag moom leen ràññee ne moo nekk njiitale political party bi dàq na ñaari ndaw Eh, ci boobule political party Abdou Diadio Bakary Seybo noonu la ñu uyoo eh, beneen xibaar ba may seet yi ci fànn bi réew mi eh, mooy ci wàllum docteur Ismaila Ceesay docteur Momo jàppale moo nekk njiitalu Citizens Alliance CA mooy Senaba Dakantal moom docteur ginnaaw dafa amoon dual citizenship maanaam daal ñaari doomu julli réew la amoon ba ca njëkk Gàmbi gi beneen foofu ci di dëkk bu Sweden waaye nag ci ay bés bu ñu génn moom docteur génne na doomu jullit ba mu nekkoon foofu ci euh, Sweden ginnaaw nag mbir mu ñu mel. Eh, dafa xatti mbiram sata ak luwaa ndaxte nag booy xool luwaa yi demee dafa àddu ne eh, bu nekkee ne nag da nga jóg pour samp sa ndënd eh, yëngatu ci wàllum langum gi wala politique gi pour nag war a ut ba réew mi yow nag benn réew mi maanaam daal réewum Gàmbi kese kott dongo moom nga war a nekk koo xam ne fii nii nga amee ab doomu jullit waaye bu nekkee ne da ko amee beneen réew lu nag luwaa daf la ko mayub lii lée moo sabab lu njiitalu Citizens Alliance mooy docteur Ismaïla Cissé mbir mu Eh, daf koo dàqalu maanaam daal eh, jamono bi maay àddu ngeen di teewlu eh, dafa mel ni nag doomu juddu réewu Gambie la waaye nag suudi citizen ba mu nekkoon lu nag teg teg na ko ci ab ndoddam ginnaaw nag mbir mu ñu mel luwaa moo ko ko may comme na ko standard de facilité beneen xibaar ba may seeti ci fànna biir réew mi xam naa sa fii laa ko jaaree ndar keppal ci ab waay bu yoo ci Aboubacar Sow foofu ci gi dañ koo tuumal góor gi nag lañ koo tuumal Ah, mooy nag ah, daf doon dóor ab eh, soxnaam soxnaam si di uyoo ci buntu bari eh, ginnaaw nag moom ah, Aboubacar dafa téye soxna si doon ko eh, kikk maanaam daal doon ko wulli wulli yoo xam ne wulli yu doy waar la donc naka noonu doon ko mbaj mbaj yoo xam ne daal maara day tàll lii nag ba nga xawee mbir mi nag ñu yóbboon ko fa mbaxane nekkee benn waaye nag Aboubacar Seydi wala Aboubacar moomu lam nekk di sàkku mooy croité kay boobu neen dawal yéen mandé dal di ko jiggal Eh, ci année bi nga xam daal loolu doon métitale boobule soxnaam eh, naam sax bi na ay kaddu ne booy xool eh, làq na lu tolloo ci juróom-ñeenti at yoo xam ne mu ngi ko mu ngi koy sëy ak soxna si tànn yàlla Euh, may nga leen lu tolo ci euh, ñetti bant te nag Aboubacar euh, dafa bëri na bu nekkee ne moom téye neen ko ci kaso yooyu dina ko jural jafe-jafe soxna si ak seen ab njaboot li mu waral mu doon àddu ay kàddu ne mu ngay ñaan njëggal ci boobule këru attikaay waaye foofu ci diwaanu Kanifing Magistrate Court mooy këru attikaay bu nekkee ci Kanifing ginnaaw nag Lamine Jammeh moom nag bokk na ci ñoo xam ne Euh, ñu ngay yëngatu ci wàllam àtte moom sa lam biral ah, mooy ne defar ñaaw njort ne bu nekkee ne bàyyi neen moom Aboubacar Sow moomu euh, bàyyi ko atam digi ndëkku xëy na euh, bu nekkee ne moom ak soxnam si ñooy bokk beneen néeg dina ko indi laat beneen tolof tolof waaye nag fa mujjee Eh, mooy principal magistrate Aïssatou Diané eh, daf ko bàyyi atam diggandiku waaye atam diggandiku boobu lañ du cab ndodam eh, mooy war naa jukki lu toro ci juróom fukk junne mooy fifty thousand dalasi boo xam ne daf ko war a fay comme na ko yéene kaa bi xëyee dëkk ñi mooy ujoo ci standard ñu si ba ginnaaw moom waa ji di ujoo ci Aboubacar Sow moom leen tumal ne daf doon métti dal soxnaam si kon mbokk yi lii moo fi gënoon fës ci xibaar yi fànn naa bit rëmi ko defee yéen ngeen teewlu taaxanlu bu bàq bi daanoo ñoo ko sajjal seetlu loo xam ne ki ni tey BBC xëy na ko dexal ci loo xam ne dafa aju ci xibaar yi biti réew yi xibaar yi biti réew yi dinañ ci xuus yi seetlu loo xam ne ki ni tey kayti yëglekaay bi de di oyoo ci BBC Euh, xëy na ko euh, fasal ci loo xam ne euh, dafa aju foofu ci diwaanu dëkk ba Somalia Somalia jàppale ne dëkk boobu ab coo dafa juddu woon la waral coo juddu woon foofu mooy seen élection yi mooy seen fànnam mbiram sànnim katta yi ginnaaw nag diggante seen njiit ma muy Mohamed Abdullahi Farmajo ak seen prime ministre bi di uyoo ci Mohamed Hoseen Robil ñoom sax ab niiro ak ngayoo ak féwalo ci ay kaddu daf daan am ci ñoom li moo waral euh, Soumalia googu saa bu ñu jàppee seen élection yi média euh, mujj tàgg euh, tembe waaye nag dafa mën ne nag am waxtaan jóg na ci diggante ga moom Abdoulaye Farmajo ak Mr Rowil loolu lay jubluwaay bi pour xool naka la ñuy tabbee ab bés boo xam ne bës boobu ñoom nag des nañu na ma amal akum sànni ma karta ci dëkku ba Somalia comme na ko BBC fasale ba tey ci xibaar yi littéraire yi mooy ci réewum Eswatini dëkk bi nga xam ne Euh, foofu tamit dañ fay nekk di nemme ko ay doxam ñaxtu yoo xam ne xamul dakk ba lii nag sababu na euh, seen euh, nguur ga jóg den pour wax ne dinañ def seen kem waaye kattan pour dakkal doxam ñaxtu yooyu bu ko defee nag des nañu muccal askan wa fa nekkee ci coono yi jéggi dayoo yi nga xam ne Eh, ñoo ngi koy jànkuwanteel ca moom bu réew comme na ko BBC daal di fasile Espagne bokk na ci réew yoo xam ne toujours eh, dañ fa dee nemmeeku ak i girawàll yi waaye nag eh, jamono bi doxam ñaxtu yi nga xam ne ñoo ngi ko fay nemeeku jéggi na daya waaye nag seen nguur ga Euh, ñoom nag euh, jël nañ euh, wala na tax nañ pour jël ay matukaay yoo xam ne warees nañ ko war a mën a jëfandikoo pour dàqalu mbir mu ñu mel beneen xibaar boo xam ne fa lañ koy ndar keppale ci fànn bi tiri bi mooy Chad Democratic Republic of Congo réew moomu nag gis nañ ne seen ndongo daara yi ñoom it dañ am ab naqat bu boo xam ne moom la métti da ko waral Euh, mooy seen euh, ticayi maanaam daal ñi nga xam ne euh, ñoo yëngatu ci buntu njàng ak njàngale ñoo wax ne dañu dëju seen biir kër yi te dootuñ faste xan ci ak morom ka la ko war waral mooy seen payoor yi dafa ndóol te na ñu ngay sàkku seen nguur gi pour ñu taxaw temm jël si ay matukaay yoo xam ne Eh, des dañ ko war a mën a jëfandikoo pour gën a ful eh, seen wàllum koom-koom yi wa ilaa loolu nag bu nekkee ne defuñ ko eh, ñoom nag dinañ continuer dëju seen biir kër yi waaye nag lii ba mu xewee yóbbee na ndongo daara yi akum njàqate ndaxte nag ndongo daara yi nga xam ne ñoo fa nekkee lañ def faral sax di addu di ko wax seen nguur gi ah, mooy nag bu nekkee ne ñooñu nag loolu jëriñ ci ay matukaay xëy na dinañ dana leen yóbbee ñu yëngatu ci affaire mbiram drogue tam mbir moom bu nekkee ne yóbbee na leen ko ah, ab jafe-jafe boo xam ne daal bu jéggi dayoo eh, des teen ko fay nemmeeku comme na comme bii si fasile ngeen jàpp ne jamono bi eh, dëkk boobu di Democratic Republic of Congo eh, coono bu jéggi dayoo leen fa nekk di jànkuwanteel ci wàllum buntu njàng ak njàngale mi la leen ko yóbbee ah, mooy nekk seen tëcca yi poyor gu ndóol la yuuxu kon mbokk lii moo fi gënoon fas Eh, ci xibaar yi fànn biir réew mi ak xibaar yi biti réew yi seen mbokk eh, Modou Lamine Sène moo nekkoon ci àndukaay bi ñu jaajëfal leen ci kóolute eh, ak safo mi nga xam ne saa su nekk yéen ñu koy àndal fii ci jamono TV kon yàlla xam ne jàmm comme jàmbal nga xam jàmm jàmm ji nga xam ne moom leen xëyee yendoo ko yeneen ko faral na rodeje bi ndikki altine jàmm lay doon jërë ngeen jëf wasalaam